ñuy jàll militant góor ak jigéen ñoom ñoo ñëw ngir taxtu ki nga xamante ni moo di Amadou Ba fii ci Vélingara ci naaj bu tàng jër ñoom ñépp daanaka teew nañu booloo ngir jox bés bu rëy ki nga xamante ni daanaka moomu la tànn bi nga xamante ni def na fanweeri simili fii ci Vélingara dem Kolda fi tamit tertu bi yaatu na loola ñu fi gis mbégte gu bëre bëri ñëwug amadu Ba gi daanaka guddi gi la tombé la Kolda di fecc ci diway ci biir campagne électorale ñëpp àndandoo ñu gis ay pancarte dox jëm benn yoon mel ni ku am ndaama amadu Ba nag moom ci booloo ak yaatal ci loolu la wotee ci noonu Fula di dund bésub campagne boo xamante ne bu xumba xumb la ci biir guddi gi nag bu weesoo Vélingara fii ci Kolda amadu Ba nag fi mu war a dem fu ci topp moo di Sédhiou